بسم الله الرحمن الرحيم نيوغي نيو نييب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي نيو مبولم جوليت دي واخ تاي ناغين خام تاي نيوغي في تي ايروبور غير غاتاندو تي كان غاتاندو تي شامبيون دي موند شامبيون دي موند بو خامتيني موي محمد گاي محمد گاي يالا خامنا اي واجورم واخ ay waa këram wax nañu li ñu wax doyaloon nañ ko waaye ñun li ñuy xam rek mooy dafa dem ci concours bi gën a jafe ci àdduna bi ñëpp xam nañ ne concours bi nga xam ne mooy Malik Abdul Aziz ad Dawli boobu moo gën a jafe ci concours àdduna bi yëpp yàlla dogal ko mu bokk ci ñeenteelu xaaj bi ñeenteelu xaaj bi ñuy tari xaaju alquranul karim yàlla dogal mu gagné ko mu jël premier place waaye tamit ñu wax ne concours googu ñu ngi ko créé depuis 1977 78 ba mu amee ba léegi 6616 fois 16 euh, personnes personnes wala seize euh, euh, fois am na ko ci ñoo xamante ne dañ koo jongante ci aduna bi waaye Sénégal mosta am li nga xam ne mooy ndam bu njëkk bi ren la ko yàlla dogal. am nañ ay champion du monde nag Dubaï am nañ ay champion du monde ay Malaisie wala ay yu noonu waaye boo fi nga xam ne fala la alquran wàccee muy màkkatal mu karama fi nga xam ne moom la alquranul karim fa lañ ko séentoo suñu doom sénégalais dem ba foofu di jonganteeg ay réew yu bëri yàlla dogal mu jël ndam loolu indil ñu ci Sénégal. loolu moo waral nag ñun sénégalais yi tamit ñun waa daara ñun doomu daara ñu ñëw fii ci aéroport ngir gatandu ko gatandu ko nag ak mbégte gatandu ko ak li nga xamante ne moom mooy daara ànd seeg nag ki nga xam ne mooy suñu njiit muy Cheikh Omar Foutiou Cissé ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla sàmm ko taxawaayam rëy na loolu ci alquranu karim mobilisation bi ngeen gis ni yëpp mu mobiliser xale yi mbuur ñii ngeen gis yëpp waa mbuur lañ amul kenn ku leen rax waaye parce que liggéeyu moo toll noonu champion du monde bu mës am wala doomu daara bu mës a dem jongante ji buy ñëw ñun waa Mbour nañ dem teeru ko ñun waa daara nañ ko teeru ñun waa alquran nañ ko teeru kon kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla sàmm ko waaye di ñaanal ñëpp nag julli ñi ñëpp tey am nañ ndam waaye Sénégal rawatina Sénégal amaati nañ beneen ndam ñu jël champion du monde boo xamante ne bokk ci concours yi gën a jafe defee ko fi nga xam ne fa la alquran wàccee doon jongante ak ay réew yoo xam ne jàpp nañ ñoo gën a jekko alquran ndekk alquran bokk na ci ñu ko gën a jekko waa Sénégal kon ndam jooju ñu ngi koy ndokkale ay waajuram jigéen di ko ndokkale waajuram yu góor di ko ndokkale sëriñ daara yëpp di ko ndokkale ñi bëgg alquranul karim waaye di ko ndokkale suñ bopp kon lii rek lañ waxoon ne nañ ko wax tey waaye di ci ànd ak ñi nga xam ne mooy la maison di Coran bu Sénégal nga xam ne baytul Quran ak ñëpp ñoo xam ne teew nañ fi Sénégal déglu leen alxuraan xewle tey Sénégal déglu leen alxuraan xewle tey Sénégal déglu leen alxuraan xewle tey Sénégal déglu leen alxuraan xewle tey Sénégal déglu leen alxuraan xewle tey Sénégal faal déglu leen alquraan xewle tey. ndonga daara yaa ngi nii yal na yàlla sàmm leen. ndonga daara yaa ngi nii yal na yàlla sàmm leen. Sénégal déglu leen alquraan xewle tey. Sénégal déglu leen alquraan xewle tey. ndonga daara yaa sàmm leen. ndongo daara yaa ngi yal na yàlla sàmm ki ne turam ba tey réew mi ndaw ñu sell ñaa ngi nii ñii la yàlla buur bi rus ndaw ñu sell yaa ngi nii ñii la yàlla buur bi rus buñ fi nekkutoon ba tey réew mi yéen alkuge buñ fi nekkutoon ba tey réew mi yéen alkuge Sénégal déglu leen alquran xewle tay ndongo daara yaa ngi nii yal na yàlla sàmm leen ku nekk buñ fi ndongo daara yaa mata naw daara yaa mata kaddu ko yàlla qur'aan yaa ko mokkal li nga am ku ko am matañe ndongo daara ya matanaw ndongo daara ya matanaw ndongo daara ya matañe kadduk yàlla qur'aan ya ko mokkal li nga am ku ko am matañe ki fi gën te kenn du ko gën yoone fi gën te kenn du ko gën ko mooy ki jàng Qur'an di ko jàngal ñeneen ndongo yow li nga am ku ko am matañe ndongo daara ya matanaw ndongo jaara yaa matañe matañe kaddug yàlla qur'aan ya ko kal li nga am ku ko am matañe matañe inna nahnu nazzalna waxi suñ borom la aca inna nahnu nazzalna waxi borom إنا نحن نزلنا واخي سن لا إنا نحن نزلنا واخي سن لا وجينا كو واتو كو ممتيري بوور بي وجينا كو واتو كو ممتيري بوور بي وجينا كو واتو كو ممتيري بوور بي وجينا téere suñ borom bi. mooy téere bu wóor suñ borom suñ borom bi. mooy téere bu gën a mooy téere bu wóor bi inna nahnu nasalna waxi sun la wàcce na ko wattu ko moom téere bu wóor la tere suñ borom bi tere suñ borom bi ku bañ tere yàlla bi am nañu la dul xarito ku bañ tere bi yàlla bi am noon la bul xarito nit ñaa ngi koy xeex yaa ngi koy gën a gëm yàlla ngi koy fal suñ téere bi mata xam inna nahnu nazzalna waxi suñ boroom la inna nahnu nazzalna waxi suñ boroom la wàcce na ko wattu ko moom téere bu wóor bi téere suñ borom bi mooy téere bu kawe bi mooy téere bu gën a mag mooy téere bu wóor bi yow al Qur'an ponit muller kula goy durir kawan ganau landam sonal kotedo tuller ayaw al-Quran punit muller kula lần đâm chế độ và lendem sonan kawdedotul len Qur'ana gan mu'i wa khajiman kum kojaam kham kham bigan lilayakati dila arjakau يوم القرآن فونيت ملير كل رير قوان قنو لندم صنن قتدو تلير جي القرآن kaybeden suyu kaybirer Sama khol dayfir Sama al-Qur'an mumana teral ñu ngi daal uh, taxaw ak kenn koo xam ne si ma ngi bokk ci ñi yor concours international Sénégal fii ñu jox ko micro mu wax moom mooy kan incha allah taala salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara mbokk yëpp euh, maa ngi tudd Moustapha Gaye bokk ci comité bi yor wàllu concours national ak international ci euh, fédération nationale bi di bi ëmb euh, sëriñ daara yi fii ci senegal ndax mën nañoo xam xale bi ñu teeru fii tey ban concours la demoon ak concours bi yan réew ñoo ci bokkoon. waaw xale bi ñuy teeru fii tey muy Mouhamed Gaye euh, mi ngi demoon ci concours euh, Jaïsatul Malik Abdul Aziz ad-Dawliya lil Quran al Karim ca Arabie Saoudite euh, muy concours boo xam ne bu yàgg la mel ne bii mooy quarante-cinquième fois ñu di ko amal ci Arabie Saoudite Sénégal yàgg na caa dem nag xëy na waaye tey jii la yàlla dogal ñu soog fa jëlee ndam ci liñ xam ñu yëg benn yoon boo xam ne Sénégal dem na foofu ba indi ndam Euh, kon muy ndam lu am solo di lu neex ci xol loo xamante ni réew mi amati na ko daara amati na ko ci kaw euh, liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey euh, ñu ñëw fii di teeru xale boobu muy Mohamed Gaye mu jóge Arabie indaal indaale ndam lu rëy loolu ak mbokkam mi àndaloon muy Cheikh Mouhamadul Mahi Touré Euh, mi nga xam ne xam nañ ko moom itam ci jaloore jëloon na fi grand prix international euh, grand prix euh, fi yeneen yeneen yeneen ndam itam ci yeneen réew ay Maroc ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon moom itam wax dëgg yàlla kilifa la ci ci ci wàll wi ñoo àndoon nag mais concours moom xam nga bu ñuy jël réew ñu di fa jël ñaari nit ak dañuy bëgg bu kii jàllut kee jàll loolu nag la yàlla def tey ñoom ñi demoon am na ci ku indi ndam waaye bu ko indi ci turu Sénégal gépp la ko indi du ko indi ci turu daaraam du ko indi ci turu dëkkam du ko di turu kenn mais turu senegal la yobone drapeau senegal la la ngabone yalla dogal non nak drapeau ci si tay tey yëkkatiku na ci kanam rew yëpp muy concours bu am solo nak bo xam man mën nañ ne lo bu téeméer rew ak nangam dañ fay dajé kon xam ngeen ni euh mbolo mu bare bare la jogante bu metti metti la euh, kon ku fa genn rek lamuy tektale moy mooy euh, waajal nañ la tagat nañ la waye yalla itam defal na taw feex ndax euh, waccay wane nit yobuna ko fa indi ndam kon alhamdullilah rabbil alamin dal lañu mëna wax rek yalla Euh, ndam lii dolli ko ci ndam yi nga xam ne Sénégal doon na ko am naka jekk euh, bu yàggutoo Njaay rek bi ñuy waajal màggal Touba gi lañ fi ñëw doon jël si beneen xale bu ñuy wax Ndeye Seynabou Ngom moom itam euh, mu jege woon Malaisie demoon ci turu Sénégal moom it indi ndam macha allah jël deuxième ca faron ba mu bokkoon. ndax mën nañ xam xale yi nan la leen tànnee bu ñu dem concours yi dañu jékki-jékki jël benn xale wala dañ leen waajal wala. waaw xale yi tànn bi mooy euh, xam nga ñoom état mooy invité état état bi bu jotee invitation yi euh, fédération nationale bi ëmb daara yi ñoom lay waxal ñoom lay jox euh, document yi ñu tànnal ko xale yi nga xam ne ñoo war a dem fédération bi itam day xool ñi fi ne te te aju ci moom tey tey organiser ay concours lu mel ne grand prix Cheikh Ahmad Bamba lu mel ne grand prix Sénéco nga xam ne xam nañ leen ci organiser ay concours national yu mag mag a mag euh, ñooñu bu ñëwee ñoom la ñuy jox dossier ñoom ci xale yi jot am ñi ñu tànnoon ci seen biir ci ñooñu la ñuy la ñuy la ñuy la tànn joxaat fédération bi mu yóbbu. Euh, mu mel ne nag euh, grand prix bi grand prix Cheikh Ahmad Bamba bi alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla ci yëpp waaye moom itam am na ndam lu rëy rëy ndax mm, xale yi mu joxeegun yëpp ku ci indi nga indi nga ndam soxna Ndata Cissé euh, ñëpp xam nañ ko réew mi dootuñ ko fàtte euh, Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba la génne woon ba mu ñëwee gis ngeen ndam li mu indi Euh, Mouhamed euh, Mouhamed Gaye mi tey euh, gis ngeen ko moom itam bi mu ñëwee gis ngeen ndam li mu indi macha allah ndey Seynabou Ngom bi ñu doon jël si bëkk moom itam indi na ndam ñoom ñëpp nag Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba moo leen joxoon fédération bi mu mu présenté leen ci candidat yi ko état bi doon laaj. kon loolu itam ay ndam la yoo xam ne fédération bi am na ko waaye Grand Prix bi itam am na ko ndax mooy wane li muy liggéey am na qualité kon lañ na taxkim bi ci nekk ñu jar sargal lañ. jara taxaw lañ ñu jara fonk lañ ndax ñoom toujours seen liggéey di feeñ ndax lii ñuy def li muy teg rek mooy ñoom lañ doon liggéey teg nañ teg nañ ko ci yoon ndax boo tànnee xale mu jiitu ci euh, grand prix national mu génn euh, bitim réew jëlaat grand prix international mu indiwaat ko ci réew mi loolu mooy wane ne fa ko tegoon yaa yoon a faa bu ñu laajee concours bi day mel ni bi wax nañ ne moom concours bi gën a jafe ci adduna bi la Cheikh Ibrahima Dia ñoo ngi dend ak moom moom daaw moo demoon yóbbuwoon ab ndongaam ñu wane ne bokk na ci concours yi gën a jafe ci adduna bi lan nga ñëwaat ci loolu ak itam lan ngay wax bokk si ak ndongo yi nga xam ne si yàlla dogal na demaguñ musaabaqa waaw xam nga Arabie Saoudite nag euh, dañuy kàngam ci alquranul karim ndax foofu mooy mahbatul wahyi mooy fa la fa la fa la alquran wàcce Euh, kon ba léegi rek dina am luñ ca desee loo xam ne euh, ku góorgóorlu wut mën nga leen caa bañ a dab waaye Sénégal nag macha allah at yi moo dox ci alxuraan ji jéego yoo xam ne euh, moom kenn du ko nattable ba fu mu demal demati rek maanaam li ñuy séentu mooy indi daal la ñuy séentu te di ko ñaan yàlla mu di ñu ko defal waaye réew mi moom egg na ci alxuraan foo xam ne li ma xam moo yeneen réew yi ci des ñu ngi koy tàmbalee ragal ci concours ak moom ndax gis nañ ni at yi xaleb Sénégal fu mu dem li ci gën a bari day indi ndam euh, ñami jonganteel dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax euh, concours Arabie Saoudite nag du concours bu yomb waaw du bu yomb ndax euh, mbooloo ma fay daje bari na bari goo xam ne mën nga ni menn réewu julit ci kaw suuf moo xam ne amul ñu la fa teewal ba ci réew yi nga xam ne duñu réewu jullit sax waaye am na ay jullit ñu bari ñu fa nekk euh, ba ci ay français ki Amérique ki Angleterre ak ñu ñëpp dañuy am ay ay candidats yu ñu yebal kon loolu mooy wane ni concours yi gën a mag ci àddina la bokk bu fu bu fekkee mënuñoo wax mooy bi gën a mag itam mën nañoo wax ni yi gën a la concours mel noonu nag foo ko fekk du yomb ndax ñañ fay yebal ay tànneef la ñuy doon yoo xam ne dañ leen di tànn ci biiri tànneef ñooñu nag jonganteeg ñoom euh, dana laaj waajtaay wu yaatoo yaatoo yaatu waaye li ci yéeme nag mooy Euh, xale yi nga xam ne ñooy dem di indi ndam yooyu euh, tey ñi leen di jàngal boo xooloon ñàkk moyen gi ñuy dund ak euh, condition yi nga xam ne ci lañ leen di waajale buñ la wax ne buñ la nee ñii war nañoo mën a indi ndam yow doo ko doo ko doo ko mën a jàpp ndax jafe yoo xam ne dañ koy dund ak manque moyen yoo xam ne dañ koy dund waaye ñu amee walante bu mat sëkk-sëkk ci li ñuy def ba nga xam ne yàlla moom walante rek la xam ku walante wu rek mu fekk la ca alhamdulilah rabbil fekk leen ci walante boobu. lan ngay kon kon ak autorité yi ak bonne xale bi nga xam ne dem na foofu andi fi ndam lu nii. waa état bi di ko jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay yi ndax euh, am na ay taxawaay yu am solo ci daara duñ ko duñ ko nattable euh, waaye nag teewut des na ba léegi. Euh, teewut des na ñi ñiy gën a tàllal loxo euh, di leen xamal ni daara ji ba léegi lim soxla ak ak ji nga xam ne moom la am ba léegi des na jotagu ci donte nag président mi ngi góorgóorlu ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale wax dëgg yàlla at boo xoolee ay jéego yu am am solo am na waaye nag li des dafa bari ndax day mel ne dafa tàmbali wutoon lu tàmbali wut nag boo ko ñëwee tàmbali ko euh, ab tool bu fekkee yaa ñi yaa ñëw tàmbali mbay ma bu boobaa nag da ngay xam ne waar wu rëy dafa nekk ci sa kanam moo tax ñoom waar wu rëy ci wàllu daara ji dafa nekk seen kanam jàmbaar la ñu di leen wax waaw góor di leen sant bu baax baax ci liñ def euh, di leen soññ di leen ñaax itam nag ñu gën a góorgóor ndax des na daara yi war nañ leen taxaw bu baax a baax si wutal leen ay barab li ci jëkk mooy wutal ay barab damay wax ni ni ñuy daggee ay jàkka di ko daggee dispensaire di daggee pompier di dagge police ci fu ñuy natt fu ne di ko lotisé noonu la ñu war di daggee daara daara société bi ñoo ko soxla nit ñi dañuy jàpp ci seen loxol doom di wër daara ci koñ bi fan la am kooku ku xam ne kon am na àq ci bu ñuy natt koñ bi euh, di lotissement ñu génneel daara barab loolu foofu la foofu la jafe-jafe bi tàmbalee. seen daara yu bëree bëri seen première jafe-jafe mooy amuñu fu ñu nekk wala fañ nekk luyaas bu cher a la ñuy fay wala bu ñu fay luyaas barab ba du dëppoo ak nañ ko bëggee kon euh, nañ leen di bàyyi ci côté boobu bu barab bu barab yi amee rek jullit ñi ndax jullit ñi ni ñuy tabaxee jàkka mën nañ ko tabaxee daara mais nag jafe-jafe bi day gën a màgg moo tax ñuy ñuy ñuy sàkku ci état bi ñuy bàyyi xel daara yi di leen daggaaleel ci place yi xam ne euh, demande sociale la société bi ñoo ko soxla ñu leen ci bàyyi xel bu baax a baax. fii tey ci aéroport Blaise Diagne di teeru suñu jàmbaar Cheikh Mahamad Gaye jógee fële ci Arabie Saoudi jël fa ndam lu rëy jël fa premier mu premier boo xam ne Sénégal mosu ko jël ñu taxaw ak kàngam koo xam ne si mënoo wax alxuraan Sénégal te tuddoo ko wala Afrique ndax muy Cheikh Ibrahima Dia jàngal xale bi nga xam ne moo euh, vice euh, nu ñu ko waxeeti deuxième ci ca Arabie eh, eh, Dubai wa yalla dogal heure bi daw mom mo ñu doon teewal fele ci Arabie Saoudite sa Ibrahima Dia tay nga ñew teewlu fi sa dom sa rak sa xarit ko xamne man na wax na sa dong la macha allah taala lan nga yek ak itam lan ngay wax macha allah. Ah, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh no ngi nuyu wa senegal yeb di len ndokkeel bu baax a ah, ci xewal gi nga xamne suñu borom ndamul alquran nun nag suñ kàddu euh, ñu ngi koy yëkkati ci turu sëriñ Talla Diop mi nga xam ne euh, mooy coordinateur euh, national bu Grand Prix Sénico nga xam ne moo sàkku teew fi taxawal ko sànnil ko ay kàddu jàllaleel ko ngàntam ndax dañoo nekk ci liggéey boo xam ne ba tey ci liggéeyu daara la rek mooy li ñu tuddee CMI te mooy couverture maladie universelle nga xam ne jamono ji kër gi ñu tuddee waqf ak al ak euh, fédération nationale mooy ittihaad sax euh, ñoo lëkkaloo di ci dox ngir bëgg daaray alquran yi ci biir Sénégal gépp ñu tàbbal fa ak am faju jàppandal faj mi ak te mooy wér gu yaramu xale yi. ci programme boobu la nekk mu fekkoon ko ci nga xam ne tey jii la xëyee fii fekkoon mu ñu waajal ko ba noppi jëm Ziguinchor ñi xam ne ñu ngi wër région yi Sénégal yëpp dinañ ko wër ngir liggéey boobu loolu it ba tey ci liggéeyu daara la rek. sëñ Talla moomu kon moo fi waroon a teew ci turu Cheikh Abdoulahi ja ak ci turu Grand Prix Sénico eh, ndax eh, lu jëm ci wàllu. concours alquranul karim wala ngañaayul alquran daanaka mëneesu koo waxati te tuddoo grand prix Sénico ah. ndax bu dee Mouhamed Gaye mii nga xam ne moo jógee tey Arabie Saoudite andi première ngañaay nun ñi nga xam ne noo dëkk ak moom xam nañ ne ñetti at ba ba jàpp ñeenti at sax mat na ko ñeenti at moom mat na ko yoo xam ni ma ngi bokk ci grand di ci def ay jaloore yu am solo yoo xam ne nii suñu borom moo tudd ko toon ci moom lu mel nii rek waaye ku ci ràññeeku woon la naka jekk. waaye ñeenti at ngi nii yoo xam ma ngi bokk ci Grand Prix Sénico euh, ba mos naa sax muy daaw euh, Grand bi nu mujj def Dakar. final national bi nu mujj def teewoon na ci. final national bii war a amaat incha allah bu ñu yëggee ci weeru koor wi it euh, na ci. yaakaar naa bi ñu seggee région yi Sénégal yëpp tànn ci cinquante personnes yi qualifié pour fenal national deux mille vingt quatre euh, incha allah moom moo nekk ca bopp ba. kon léegi loolu ab liggéey la boo xamante ni bi jikki jékki rek mu sotti. waaye da ko jàng tàggatu ko. jàng ko tàggatu ko ba suñ borom defal ko ci ci ak mbaaxam suñ borom yeggale ko fii kon léegi day mel ni suñ taala boo amutoon benn teq dana fi teew ci turu Grand Prix Sénico ci turu Cheikh Abdoulaye Dia euh, jotal seen kaddu yi ndokkeel ak seenug cant ak maanaam seenug mbégte ci xew-xew bi kon ñun suñ kaddu foofu la euh, jëm kon seen Talla ma ngi may yóbbante daal ne Cheikh Abdoulaye Dia nee na na ci yëf yi kontaan na ci am na ci mbégte mu rëy rëy ndax ku ku xam ni mu mel ci alxuraan ak taxawaayam fu ngañaayul alxuraan amee rek moom mel na ni moom kooko moom la ko defal. kon sëñ Talla bu fi teewoon xëy na ay kaddu mëneesu koo wuutu waaye daal mënut weesu kàddu yi ndokkeel ak kàddu yi sant ak kàddu yi maanaam ñaanal kii nga xam ne mooy champion bi di euh, Cheikh Mouhamad euh, euh, Gaye suñ borom sàmm ko barkeel ko te suñ borom yokk ko ndam lii doon tàmbalik ay ndam yu bëree bëri yu ñëwaat ci kanam loolu daal mooy li nga xam ne moom laa ciy ubbee. doo ñëw dugal ñu ci musaabaxa bi comme yàlla dogal na heure bi daaw yaa fa demoon yóbbu woon sa ndongo El Hadj Cheikh Dia ñu koy moom la suñu sàmm ko nga ñëwalal ñu ci concours bi mel na ni concours bu jafe la bu fekkoon mën nga ci andi ay message yu ndaw rek lan ñu ciy wax ci concours bi ak yow dem nga yeneen concours dem nga Dubaay dem nga yeneen yi réew yi sax yu du Dubaay dem nga ci concours bi lan nga mën wax ci concours bi. waaw concours bi moom Mouhamed Gaye def na ngañaay lu rëy rëy ndax wax deug yalla 166 mutasabiq témir ak juroom benn fuk ak juroom benn ño ci bokkon ci téeméeri rew ak fuk ak juroom ñaar ci juroomi wankas juroom juroomi bankas lañ ko def moy bankas bo xamni ñang ko jagleel ñi eh, def qiraat riwayatan wa dirayatan nga xamne dañ lay jox ay laaj nga jang ko bam jeex ci riwayu ba nopi dog la laaj ay laaj yu aju ci walu qiraat bobu moy. bankas bu njëkk bi ñaareelu bankas bi moy lo xamni da ngay jang juroomi laaj bam yegg ñu dog la laaj ay mufradat, tafsirul mufradat ay ay waat yu jafé ci alquran ñi laaj lako nga firi ko ñetteelu bi nak moy mokkal alquran te rafetal ni koy adaaye ak tajwid bi ñentelu banqaas bi nak ci la Muhammad Gay bokon te moy qaju alquranul karim waaye dafa jafe lool sax ndax juróomi wànqaas yëpp a jafe ndax ña fa teew boo xoolee ña fa teew ña ngi fay taseeg ñëpp ñoom miin ci concours yi yi am ci yeneen dëkk yi la ñi ràññi ko woon ci yeneen concours yi moom la fa seeni réew di yebal ñi nga xam ne dañoo ràññiku ci yeneen concours yi lu mel ni Dubai wala Kuwait wala Kenya wala feneen fu mu mën di doon rek ñoom nga fay taseek nga xam ne eh, da gis koo xamante ni bii kun miin la ci jalloore lool ci concours ba noppi e, bokkul sax ci juróom yi tànn nga xam ne juróomi place ni mu yaatoo mu doon koo xam ne jàppoon nañ ne première rek lay jël te taxul mu dugg loolu misaal lay doon ci concours bi jafe gum jafe amu ci benn banqaas boo xam ne dafa yomb ndax ñi fay tasi ñëpp ay champion lay doon kon Mouhamed def na jaloore ju rëy rëy waaye nag moom itam e, daa doon koo xam ne itam comme ni ma la ko waxee sànq rek fi mu tàggatoo ak fi mu jaar fu mu dem rek bu ànd ak bu yàlla ak tawféexam mën naa def jaloore ju toll nii ndax ku eh, grand prix Sénico euh, képp koo xam ne jaaree nga ci tàggatoo ci ba àgg ci niveau ñu war laa mën a tànn nga génn teewal Sénégal rek boo génnee lu concours jafe-jafe rek da nga ca mën a bokk ba noppi mën caa génn. ndax Mouhamad gis nañ ne concours yi ci ginnaaw ma ñëwaan na benn concours di jàng riwaayatu xaaluun dawaat na beneen concours di jàng xafs ba concours bi yaakaar na riwaayatu xafs la doon jàng loolu dafa mel ni jàmbaru suñ ji la lan ngay wax ci ak euh, ban taxawaay la war gën a ci alquran. waaw loolu moom euh, Mouhamed moom euh, am maanaam wax dëgg yàlla war nañoo jaajëfal ay kilifaam ak ñi nga xam ne ñoo koy jàngal Serigne Muxtaar Ndiaye ña ngi koy ndokkeel bu baax a baax ndax. moom yëmut ci jàng alxuraan mokkal ko rek waaye riwaayaat yi jot naa am lu eh, yaakaar naa ñetti ñetti riwaaya ñetti riwaaya yoo xam ne ijaasal nañ ko ko nga xam ne moom jàngut yamut ci riwaaya warsh ba nga xam ne moom la mokkalee woon waaye jàng na ko ñi ijaasal ko ko mu jàng riwaayatu Qaaluun ñi ijaasal ko ko mu jàng riwaayatu Xafsa ñi ijaasal ko ko te yaakaar naa ma ngi jàll ba léegi ma ngi ci shuba kon ma ngi ci ñeenteelu riwaayam boo xamante ne bii ma ngi koy jàng bu yeggee man ci am ijaasa mm. loolu it di ab joxoñ bu leer ci Sénégal fi ñu toll ci alquran ak dayo bi nga xam ne moom la fi alquran yegg te loolu li ko sabab mooy ay sëriñ yu jàmbaare ñu leen tuddee ay machaayix yu xereñ te attan lool te jox gëdd liggéey bi ñoo nekk ci réew mi ci wàll gu ne rek am na ku fa féete di liggéey liggéey bu rëy rëy ka nekk ca bopp di Cheikh Mahmoud Hassan Bousso nga xam ne mooy sëriñub sëriñ ñi si fii ci Sénégal ci wàllu njàngom alkuraan am na ñeneen ñu ci fes ñu mel ni sëriñ abdu Samad Mbuub sëriñ Mbaalo Fall sëriñ Maam Thierno Diop bari nañ daal boo ko doon lim sëriñ Alpha ñoo ñëpp ñu doon ay jàmbaar ñoo xam ne ñu ngi toog di jàngale njàngale mu mucc ayib di ijaasalaate ci anam goo xam ne ñañ koy defal dañ koy yelloo. loolu bokk na ci li nga xam ni moo waral euh, lu nimel mel gannaaw ngën euh, ngëneelu yàlla akuk mbaaxam waaye rawatin nag xeeti concours yi nga xam daa bëgg yaatu ci réew mi concours Baye Niass ma ngi fi konkur euh, Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi fi Sénico dégg nga ak yeneen concours yi nga xam ne. Euh, baytul quran bi am na concours bu muy def. yooyu concours yooyu am solo la yooyu yu am solo yooyu noonu ñuy def noonu lu mel ni koor gi noonu. lu mel ni tartila ak yeneen concours yu mu mën di doon rek concours daal day participer bu baax a baax ci rafetuk alquran ak góorgóorlu euh, jekkal niñ koy jàngee ak góorgóorlu euh, ndong yi ci daara ji macha allah ñu ngi ñaan suñu. fàttali ñu tur bi foo jógee. man Ibrahima Dia laa tudd bàyyi ko Touba. Eh, teew fii di suñ ñaari champion yi ndax sëñ Mouhamadul Mahi Touré mi ngi ànd ak Mouhamad Gaye te Mouhamadul Mahi Touré mos naa doon eh, mos naa gagné doon champion wu Grand Prix Alhaji eh, Ibrahima Niass international Grand Prix Mouhamad Assadis bu Maroc international ba noppi ak grand prix Sénico mës na koo jël première dem na Tanzanie jël fa deuxième place kon kooku jàmbaar la lool wànqaas bi mu bokkoon moo xat lool te jafe rek waaye moom itam def na jaloore ju rëy xam nañ ko ci ak njàmbaar yàgg na indil Sénégal kon moom itam nañ ko tatagal kem ni ñu tatagalee Mouhamed Gaye rek ndokkeel ko bu baax a baax a baax a baax ndax def na jaloore moom itam. jërëjëf Cheikh Ibrahima jërëjëf sëñ bi ko kàddu moom itam yaa ngi ci baytul Quran di site boo xam ne si lépp am Qurani ilal Quran mal ci alxuraan ci alxuraan léppam alxuraan la ñu wax la tey nga ñëw fii ngir teeru suñu jàmbaar ji macha allah taala nga yëg bi nga ñëwee macha allah. baarakallah euh, na waa àdduna daan ñëwee di teertu seen niti àdduna noonu lañ ñëwee tey ngir teertu ñooñ alxuraan di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ndokkeel ñooñ daara di ndokkeel woyjuru xale bi euh, jël prix bi damay faral di wax ni daara ji ñettay tax résultat am fa Euh, benn bi xale bee ko moom benn bi ki koy jàngal moo ko moom beneen bi it waajuru xale bi moo ko moom dañuy wax ni ñett yi bu ci ñàkk xale xam du ko yomb kon euh, ki ñuy njëkk a ndokkeel daañ ndokkeel waajuru xale bi parce que moo ko muñ waaye daañ ndokkeel it euh, xale bi ngir njàmbaar gi mu wane waaye daañ ndokkeel sëñ daara bi moom itam ngir ku bëggul alquran ku concentré wul ci daara ay léeg-léeg am na résultat yoo xam mënoo ko ci am ko seex ku mu ne seex Mouhamed Gueye bi ñuy teertu nag ak seex Mahi Touré euh, comme ni ko mbokk yi rek kenn ku ci ne def na ay résultats fi Sénégal waaye def nga ay résultat ay jaloore euh, ci yeneen réew yoo xamante ni ku xam démb ñoom lañ gënoon miine ñuy wane ay jaloore ci alxuraan kon buñ demee ba ëllëg Soudan di wane yu mel noonu alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu ngi ndokkeelaat ñooñ daara euh, waaye li nga doon junj léegi rek mooy suñu état ñu ngi koy bàyyiluwaat xel daara Euh, parce que li ñuy wax ni kumba am ndey kumba amul ndey bi xew ci dëkk bi ay léewén bu fekkoon yamale bi am na ci euh, njort nañ ni résultat bi euh, bi gën a kawe ci àdduna bi dañ dem ba Sénégal yi Sénégal yi danañ ko wane. parce que xam nañ ni der bu ñuul ak dëkk bu mu mën a dem li liñ koy séentoo xam-xam daañ ko ko séentoo mais daañ ko séentoo jom moom day gëm ni toujours rek ca ñu war a nekk ca kaw ca lay bokk te wax dëgg yàlla loolu. buñ ñu accompagner tuuti comme ni ko sëñ Ousmane euh, Gueye waxee léegi lu jar bàyyi xel la mooy sëñ daara yi ñu xes bàyyi leen xel ci moyen bu ñu yoree njaboot yi waaye ñu bàyyi leen xel ci bërëb bu ñu yore njaboot yi waaye ñu bàyyi leen xel surtout ci dund buñ mën a accompagner njaboot yi ngir ñu mën ci génn parce que kenn ku ne xam na ni nekkin yu metti na te wax dëgg yàlla koo ci gis mu toog ci daara boo dikkee li liñ lay njëkk a junj rek mooy yëgal ni borom jom moo fa toog ku mën a muñ moo fa toog la sëñ Ahmad Saxiir lu daan faral di wax nag rek la ñuy wax doomu daara yëpp wala sëñ daara yëpp sëñ Ahmad Saxiir la daan faral di junj naan ku may dimbali gaawal balaa say doo nga màgg bu say doo nga màggee kenn ku ne xam na ni jom ji nekk ci ñoom danañu wane taxawaay boo xamante ni ku yéex doo am euh, foo dugal li nga waroon dimbali ñooñ daara kon ñi ngi ndokkeel xale yi demoon waaye ñi ngi ndokkeel seen morom yi ci daara yi xabib yi ñu am ren te ñom ñëpp ñu nekk ci musawaxat yi pour fassiyene bok ci jongante yi am Sénégal way am bitim réew ñi ngi leen di ndokkel di leen wax ni yoon wi ku melni Cheikh mohammed Gueye wane nako waye ku melni Cheikh Mahay Touré wane nako ko alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ndokkeel suñu mbokk daara yi fi te yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye Cheikh Omar Kane sa taxawaay ci alquran waa daara mënuñu laa fay li ma yéem ci yow mooy da nga summeeku ngir nekk xaadimul quraan ku ma yéem nga amul benn jotaayu alquran bu ñuy gis te sëriñ bi duñ la fa gis nga wane fa sa taxawaay waaye nga wone fa sa yitte ngir taxawu daara waaye ngir ressource bi daara di feeñal te bu njëkk ñun amuñu woon moyen pour wane ko ngay def pexe ngir nan la ñuy def ngir mu feeñ te daara loolu rek la ñàkkoon yal ñu ngi lay ñaan yàlla yal na yàlla teg la loxo. barke mag ñi. it fàttali ñu tur bi. maa ngi tudd Mouhamadul Mansour Diop maa ngi nekk fii Saly yor fi daara daara alquran mu tudd daara Saly internat li tahfidul quran li Seydil Habib Diop mi nga am ay xaafis mi def ren la def ñaar fukat ak ñent fi ci gox bi ñuy wax sali ndam mi ndam top ci barke alquran karim te delu di ñaanal wa juróomu góor muy papam ndax lépp mom la lépp rek mom la taxaway nako taxaway bo xamne sire am na taamul waaye amutul yemukaay soxlawul dara ëllëg ngir njabootam soxlawul leen ngir njabootam ñu ngi sant di ko gërëm di ko ñaanal ndam lii mu am tey yàlla am ndam lu gën a kawe njor ndam lu ko gën a rëy ba ñu dund bay teeru papaam yoonu màkk ndax lépp papaam la lépp moom la di sant sëriñ daaraam bi nga xam ne mooy sama mag maa moom ñoo bokk ndey ak baay mooy nijaayam moo ko jàngal taxawaayu ko taxaw bu rafet ñu ci am yaakaar bu baax a baax nag moom itam ndax moom itam lépp moom la sama xol dafa seet daal ba lépp mënu ma kaa wax. jërëjëf ci gone yi surtout nga am doom yóbbu ko daara mu dem sori la loolu la nga ko doon dundee. ah xanaa mu neex ma lool nag ndax man damaa judd ci arxuraan yaroo ci arxuraan màgge ci arxuraan ndax ñun suñu lépp arxuraan lañ moom daara ji lu mu fa mën a sonn ak lu mu fa mën a lii rek moom na na am na am ak arxuraan ji rek ndax ñun arxuraan ji rek lañ xam. gis nañ ay gis yoo xam ne dafa dem ba Makka def ay def sinap di wax ne sama yaay di ñaan ñaan boo xam ne si loolu bi nga gisee bi dem message image yi yow lan lan nga yëg. xanaa am mbégte ak kontaan rek ndax bi mu dem daa ñëw ba egg si ne ma yaay ñaanal ma ma ñaanal ko ne ko soo demee loo nag ma fa ñaanal gudd fan ak wér ñaan googu nag xam naa des na ci moom ba mu yeggee na ma ko waxee woon noonu noonu la ma ko defalee. xam nga yow jàmbaar la yoo xam ne si yaay daara la mais yaay daara ju jàmbaar la joo xam ne histoire am ñun bëri na lu jambala ci alquran waye alquran dana ko teral inshallah taala te yéeg nañ ni alquran dana ko teral inshallah taala moo tax kon ña ngi ma ñaanal ko bu baaxa baaxa baaxa baax te njort naane bi nga déglu am jangam yaakaaron nga ne mom dana bokk ci ñu jël premier inshallah allah. na ndax yel na ko ko ñaanal nak biñ ñe day dem makka ñu ne benen riiw la wala dem ñu ne makka lay dem dama ne ko Mouhamed makka gi nga jëm sa turandoo mo la tanal bopam kon nak da nga koy wujju te da nga indi ndam inshallah ma sant ci yàlla bu baax nag bi ñu ko yàlla defalee ma nga ji ñaanal ay ndami dem topp ci waaw yàlla barkaram soxna Ndeye Ndiaye daar musi <laughs> yaayam la bàjjanam la macha allah kon si bi mooy baytul quran moom moo tàmbalee ci alquran la maison du Coran commencé ci alquran min alqurani ila alqurani ma alquran léppam alxuraan la sët bi macha allah. <laughs> Sénégal déglu leen alxuraan xew la tey. سنغال دجلولين القرآن خولتي سنغال دجلولين القرآن خولتي سنغال دجلولين القرآن خولتي سنغال دجلولين القرآن خولتي سنجا دجلولين القرآن خولتي دونجا دار يعني nii yal na yàlla sàmm leen. Ndongo daara yaa ngi nii yal na yàlla sàmm leen. Sénégal déglu leen alquran xew leen tey. Sénégal déglu leen alquran xew leen tey. Ndongo daara yaa ngi nii yal na yàlla sàmm leen. Ndongo daara yaa ngi nii yal na yàlla sàmm am bi am am yaayam da takbir Allahu akbar ba dëkk tey ba kenn tabaxu la waaw macha Allah moom ah ñu ñaan ñu ñaan Allez, dara dara dara loo xam ne moo gën a rëy lii incha allah leen dokkeel macha allah mu ngi nii. waaw génn xalaat bi laay laaj. alaaji di nga gis incha allah. alaaji ñëw leen génn génn waaw. alaaji alaaji laaj alaaji ngi nii. Oh, wow! wow. Allez, arène leen macha allah arène leen arène leen ba ñu génn ba ñu génn euh, espace doxal doxal doxal tuuti Cheikh Amar mën nañ taxaw kay nañ taxaw non non non nañ jël nañ jël non non yoon bi la yoon bi yoon bi oté dañuy daw yoon bi la yoon bi yoon fi yoon bi ci ma yoon bi arrière arrière dañ dugg ci parti arrière leen takbir Diop Diop doxal suñu champion du monde wàcc na coupe bi jël premier ànd ak suñu da ngeen di suñu doom Aliou Cissé ñoo ngi kontaan ci Sénégal ak doomu Sénégal ñoo ngi kontaan ci daara doomu yi macha kontaan ci association daara yi kontaan ci sëriñ daara ak waajuru ndox lii nii lii yombul lii dafa waroon Sénégal ñëpp ñëw taxaw ci aéroport ngir gasandu suñu doom gasandu suñu doom yi fii fii fii baax na fii baax na Diop Diop Diop fii la Diop fii tuuti ni loolu moo ma fi président yëg ni vraiment daara yi jot nañu jox seen place bi ñu am ci biir Sénégal parce que Sénégal ko wax wax daara yaakaar ni premier système éducatif bi njëkk am Sénégal premier ordre d'enseignement Sénégal xam ci durant toute son histoire moy jangum alxuraan ak jangale diiné yakarna naa place de Sénégal wara jëlat motax mu wax ni bu gisee tay ji ma contane man yàlla dafa dogal 2011 maa yóbbu xalé yi demoon bokk ci concours bi Arabie Saoudite

ki daan jàng alxuraan ji wax ni dañuy tooñ ñu reetaan dafa ndax ñàkk ma am fasaxa ñàkk ma tajwid tey bu ñu demee ba Sénégal di jël dajeeg ay arab ay naar yu làkk arab di jël ndam li yaakaar naa loolu sigil na Sénégal sigil na bépp jullit loolu day wane rek alxuraan ku jàng def effort yàlla mu jox ndam li inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizuun yaakaar naa ni bal huwa ayatun bayinat fii su duula si utul ilm conti accompagnement day continuer ndam li day continuer incha allahu taala te effort day continuer parce que yëg-yëg boobu moo animé tu le gouvernement du Sénégalais ñu xam ni war nañu taxaw daara yi leen te ñii ku leen jàppale ñu dem. parce que te ñoo ngi ci sama benn xar day wax ni bëri ko ci mbartal la alxuraan. boo ci tege sa loxo mu dem boo ci dem kon yaakaar naa tey jii liy wane rek ni a naax ñax xale ñu gën a góorgóorlu xam ni ca kaw ci allahu taala. jërëjëf alhamdulilah xale bi ñu ngi ko waajal comme ni ñu baaxoo waajal xale yëpp fii ci Sénégal Eh, ci dëkkaloo leen ci jàng alquran ci ñu jaar ci yoon yi ñuy jaar ba mokkal ko waaye tamit jéem koo garde eh, garde ko it ci di ko jàng rek di dem waaye jéem a eh, wut xam-xam yoo xam ne moo lay permettre pour nga mën a bokk ci musaabax yi mel nii walilahi alhamdu am na ci ay jéego yoo xam ne naar yi ko doon diglu ci bitim réew ñoom seede nañ ko ko seedeel seedeel nañ ko ko ba amoon yëg-yëgu ne sax dañ ko war a téye mu jàng seen réew waaye saa ñu ubbee ay kayitam xool ne kii kat 15 ans dong la amagun ñemewuñ koo téye parce que mësoo ragut ci seenum réew mm-hmm. loolu ay boroomi xam-xam lu man ñetti borom xam wax nañ ma ko foofa yoo xam ne biñ déggee am njàngam dañ cee intéressé wu loolu ba wax lu mel noonu loolu liñ ciy dégg rek mooy Sénégal wax dëgg yàlla am na jéego bu rëy rëy boo xam ne ñu ngi koy def ci alxuraan tey ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax ci bitti mm-hmm. euh, loolu moom euh, leer na ci bopp ñëpp kon jaaruwaay yooyu dañ jaar ak moom rek ba alhamdulilah tànn ko ci tànnin boo xam ne it bi ñuy dem dañ koo segg yàlla dogal moom mu génn teewal Sénégal foofa alhamdulilah mu dem yàlla jox ko ndam ci concours boo xam ne concours bu jafe woon la. ndax bu ma la waxee na la lu mat euh, téeméeri réew ak fukk ak juróom-benn ñoo ko seqoon ñi participé woon lépp tolloon ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñu séddale leen ci ay pàcc wax dëgg yàlla pàcc bu nekk yi nekk bu jafe-jafe boo xam ne euh, dëgg-dëgg. Euh, xay na ndimbalul yàlla taw fexam mi ngi ci waaye nag góorgóorlu loxoy Sénégal tamit ak mm. encourage seen ndaw ci alxuraan mi ngi ci euh, kon rek loolu rek lañ ci mën a wax waaw di kenn ci fédération bi eh, di liggéey ci communication ak ñu bëree bëri Euh, ak ñi grand prix yu mag yi ci réew mi lu mel ni grand prix Cheikh Ahmadou Bamba euh, ak fédération bi ak grand prix Sénico ñaari yooyu ak yeneen yi fi nekk yëpp daanaka ñoo moom produit bi tey comme ni ko inspecteur waxee te loolu mooy Sénégal yëg-yëg bi ñuy am rek mooy ne ay la yéwén sëriñu daara yi. sëriñu daara yi niveau gu ñu toll fi mu ne ci jàng ak jàngale suñu amoon mooy yi toll noonu kon euh, dinañu euh, dinañu dañu dinañu yéege niveau Sénégal foo xam ne dana ëpp doole fu ko yeneen vedettes yi di di di yéege te lii misaal la ci kon ñun tey suñu kaddu fi ñu koy jëmale mooy képp kuy sénégalais muy état muy ku dul état na nga na nga yëg ne xale yi def nañu loo xam ne yayoon nañu njukkal lii nag dañoo dajeek ñoom fii tey di leen yóbbu ci kër yi mais bu ñu dalee ñu ngi lancé appel di wax ne képp kuy sénégalais na nga waaj ku am sa or ku am sa alal ku am sa ay terrain ku am sa ay oto ñu sagale que ñii nga xam ne fi ñu yéeg drapeau Sénégal néew na néew na néew na ku ko man Sadio Mané ne limi man man man football fii xale yi di yéegal affaire bi wax ay fa yi dëgg dëgg yàlla war nañ leen jox lu tolloog li ñuy jox ñooñu man daal li may wax mooy chef de l'état laay wax moom mi nga xam ne moom la réew mi tege ci loxoom ak képp ku nga xam ne ëllëg réew mi war naa teg ci sa loxo xale yi daal li li njëkk njëkk mooy nañ leen jox kër nañ leen jox oto teral ay seen sëriñ daara jox leen ay daara yoo xam ne wax dëgg yàlla fukk bu ñu def danañ ko mën def junni inspecteur nag wax na ko fi mu nekk nii état bi mu ngi jël juróom-benni téeméer ci ay daara war leen jàppale. war a recruter juróomi téeméeri sëriñ daara directement dugal leen ci fonction publique publique loolu lu njëkk la waaye nag dañuy wax ne lu ëpp ñetti millions nit boo ci jëree juróomi téeméer jàmbaar nga waaye nag ab tambali la.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 إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين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 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم مت ولا مت الحمد لله metti na méttiwul waaye sant yàlla bu baakha baax rek ndax defal nañu li ci gën di ñaan yalla yalla nañu jik yalla jik senegal gi yëpp asalaamaaleykum. ban ben riwaay nga doon jang xawsu la fa doon jang ñi li la doon jang léegi. xooloon la doon jang léegi. lan ngay wax xalé yi nek senegal te defu ko sa wax. ah ñu gëna gor góorgóorlu ci alcorane direct te ma a alcorane mu bañ nek lo xamantene ci comme ça dañ koy jang pour musabaqa déedéet da ngay jang ba musabaqa dikkel rek nga dem def ko te ñëwaat. <laughs> lan ngay wax sa sëñ daara ah dama koy sant sant goo xam ne amul tàmbalima waaye amul fu mu yem ndax bu yàlla dogalee jotaay bii nii tey ginnaaw bu si yàlla noppee ay loxoom génn si sant sama ñaari waajur bu baax di ko sant bu baax a baax waaw. dañuy dem dañuy gis nga dem ba Màkka di ñaanal sa waajur lan nga yëg bay ñaanal sa waajur ak émission yi. xanaa li ñu yàlla wax rek moo tax ma ne woon naa leen naa leen ñaanal rek mu ne wabil waalidayni ihsaana te xam naa foo ko natt weesu na ko loolu nag dafa nekk loo xamante ne si dafa nekk loo xamante ne si daal bëgguñu ko woon yemale foofu waaye yàlla moo dogal ñu yemale ko foofu waaye bu ñu fa gënoon a yàgg danañ ñaanal Sénégal gi yëpp rek incha allah. lan nga wax sa papa lan koy wax sa papa. sama papa moom xanaa wax mu gën a kii rek incha allahu rabbi maa ngi sant bu baax a baax te di ko gërëm ndax ku sonn la si man lool am na loo xamante ne si moom daanaka kenn du ko wax fii. jërëjëf